bi danoo bëgg a yëgal fësal ni Tivaouane club de randonnée pédestre day amalaat ñaareelu édition randonnée pédestre bi mu defoon daaw le 28 mai ren ñu bëgg koo def incha allah le 12 mai fii ci Tivaouane ñi ñu fàttali rek ni ci weeru août 2021 ci la ay ñu dëkk Tivaouane ñoo xam ne ñi ci ëpp seeni at romb na juróom fukk ñu dajaloo ca camp sapeur pompier fii ci Tiwaawan ànd dox liñ ci jublu mooy seen wér-gu-yaram moom lañ ci jublu dimanche bu ne nit ñi di ñëw muy gën a bari nit ñi di gën a xamante ñu daal di jël décision ni lii nañu taxawal kuréel loolu moo tax le 15 décembre 2021 ñu daal di organiser assemblée générale constitutive daal di am ay charte assemblée bi nangu ko ñu daal di fal comité directeur comité directeur bi fal bureau exécutif ba nu fa jógee ah def nañu suñuy démarche ba am reconnaissance juridique Tivaouane club de randonnée pédestre ministère reconnaître na ko am na récépissé